jàngoro bu ne am na saafara bu leen jaaxle atoti di jóge Côte d'Ivoire li mu làmboo ci liy seddal yaramu doomu aadama mëne su ko lim waaye bokk na ci li mu làmbool ñi am faiblesse sexuelle maanaam góor gi néew kàttan ci wàllu sëy atoti amu ca moroom ñi amee diabète dafay wàññi seen kër ba ci yow mi amee tension dafay régulariser sa tension atoté dafay leeral bët maanaam yow mi sa bët lëndëm atoté baax na lool ci yow baax lool ci góor wala jigéen bu am biir buy metti atoté ca ay ba ci fatiguement général wàccee coono moo ca mën ba ci hémorroïde foo toog sa biir di jooy naan xur wutil gaaw atoté ca MMC global business nekk fii ci Touba marché Ocass Mamadou Gueye moo koy indi ak quantité bu ngeen ci mën a soxla téléphone 77 716 23 99 ak atoté sa yaram dafay sedd guy lakum shukran lakum sunu mag ñu baax ñi fi daan yare dinu wan di yoon wuñ deeju aoudu billahi min shaytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala rasulillah muhammadin wa alihi wa wa man wala mbokk yi ñiy teewlu fii ci seen seen Rafah TV rawatina seen <clears throat> émission bii di sawtul xaq kàddu dëgg ñu ngi leen di nuyu te di ñëwaat ak yéen ci seen émission sawtul xaq ngeen baaxu ci ànd ak seen mbokk Mouhamed Fadel mbokk yi ci jamono boo xam ne waa àddina jëpp maase nañ wax ni doole li ko yor wax ci la bokk wala bokk jumtuwaay yi nga xam ni moom lañuy ñuy waxee te jumtuwaay yooyu ñuy waxee mbokk yi li ñuy tuddee ak maandu li ñuy tuddee ak yiw dafa mel ni dafay waaj a dem jumtuwaay la yoo xam ne daanaka damay wax ni waxtu wu nekk war nañ di ci def ay waxtaan war nañ di ko gën a yéwanalaat war nañ bu baax a baax di ko gën a defaraat ndax li muy man di yàq ndax yàgg nañoo wax ni benn baat kàddu mën naa yàq ci xol loo xam ni junniy jaasi mënu ko yàq benn kàddu ndax coow loo fi gis li ci ëpp kàddu kàddu lay jóge waaye mbokk yi fi mu nii dafa mel ni jamono bi boo boo ko dee xool daanaka ñëpp léegi ay journaliste lañ ñëpp boo ko xoolee yor nañ média këf gu ndaw rek mën nga ko yor sa benn portable boo xamee ni daanaka du jar lu ëpp soixante quinze mille mën nga cee yor média boo xam ne mën naa toj àddina bi te bu fekkoon nga xamante ni tey da nga koy def defin woo xam ni wu lalu ci xam-xam la defin woo xam ni wu lalu ci ak maandu la wu lalu ci ak yamale la ñu ne waaw waaye ñi ci ëpp buñ koy def ci seen bànneexu bakkan lañ koy teg benn ñaareel ba it ak xool nit koo xamante ni nee nañ neexu leen rek ñu asarne wu ci karam la ci gën a ñaaw te gën cee bon nag mooy ñu ci def ay chantage ak di ci laaj xaalis mbokk yi alquran daf ñoo waxoon ni ya ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahala fa tusbixu ala ma faaltum naadimin borom bi yàlla daf ñoo waxoon ci alquran ne su ngeen déggee ab xibaar bu manti doon bala ngeen koo siiwal bala ngeen koo tasaare na ngeen wóorlu xibaar boobu ana ban dayoo la am est-ce que xibaar bi nekkul lu yàq est-ce que xibaar bi nekkul lu mën a tasum pénc est-ce que xibaar bi nekkul loo xam ne buñ ko tasaaree mu yàq dundu àddina mu yàq dund aw nit bala ngeen a tasaare xibaar bi na ngeen xool loolu bu baax a baax rawatina nag bu fekkee xibaar bi dafa jóge ci koo xam ni xamoo kan mooy xam ki rawatina bu fekkee xibaar bi dafa jugee ci koo xam ni xamoo mooy kan xamoo jukkoom xamoo ak njubam xamoo it maanaam ak maandoom xamoo it kan mooy kii kan la ndax comme ni ma ko waxee sànq fi mu li ñuy tuddee tasaare xibaar dafa yomb yomb goo xam ni jot xibaar yi dafa yomb yomb goo xam ne ñi ci nekk ndax danañ segg lan mooy li wér ak lan mooy li baax lan mooy mi mën a jagal pénc mi ak lan mooy lu ko mënta jagal mbokk yi loolu lu jafe la te ñi koy def daanaka ñi ci ëpp ñi ñuy tàllal micro sax da ngay xam ne ñii nii wareesu leen a jox ñu yox ci pénc kon nañuy fàttaliku kàddu yàlla googu bu baax a baax mooy bu fekkee nga xam ne xibaar dafa ñëw ci yéen te ka ko indi xamu leen mooy kan cig njubam xamu leen mooy kan cig maandoom xibaar ba na ngeen ko vérifier bu baax a baax a baax a baax bala ngeen a yàq dund aw nit bala ngeen a yàq dund aw askan bala ngeen a indi ay tojantey bopp ndax su ngeen ko defee rek loolu musiba mu rëy dana leen ko indil mbokk yi xam ngeen lan moo tax may wax mooy dama seetlu ñaar bi ci njëkk moom mooy problème mu Adji Sarr ak Ousmane Sonko dañoo jékki-jékki rek maanaam sulliwaat ko mu mel ni tey jii la xewaat nga xam ni mbooleem débat télévisé yi dañ koy waxtaanee. yoo rajo yi dañ koy waxtaanee boo duggee ci youtube bi boo duggee ci réseaux sociaux yi mu mel ni tey ji la xew te man dama xamul loo xam ni ëmbul lan lay wasinee man moo ma jaaxal ba pare ñu indee ko ci beneen façon boo xamante si dafay mel ni dañoo bëgg a indiwaat fitna dañoo bëgg a yeewaat mbir moo xamante si ni buñ ko doon fàttaliko lan ca waroon a gën fàttali ko moom mooy ñàkkoon nañ ci suñuy doom yoo xam ne la leen rey lu ñàkk fayda la lu ñàkk solo ñu faatu ci lan ca war a gën a euh, fàttaliku moom mooy ña faatu ñooñu seenum njaboot fuñ fuñ mujj lan war a gën a fàttaliku ci événement mars yi lañ ci war a gën a fàttaliku mooy ñi ci amoon ay blessé nga xam ni limoon nañ leen ba ñu ëpp juróomi téeméer ñooñu fan lañ mujj état bi ban taxawaay la am ci ñoom ñi nga xamante si ni tey ñooy societé civile bi ñi nga xamante si ni tey maanaam ñooy euh, les bonnes volontés ban taxawaay la ñu am ci ñoom mbokk yi lii lañ waroon di ci di euh, ci fàttaliku ñi nga xam ni ñooy journalistes yi débat bii lañ waroon a posé posé ñi nga xamee ni ñooy taskatu xibaar yi lii lañ waroon di jàllale information yi ñu xam ñun ñii nga xamee ne ay victime lañ ci mbir mii te nekk suñuy doom bokk ci askan wi fan lañ mujj xanaa damaa yaakaar ni buñ doon fàttaliku lii la ñuy fàttaliku waaye déedéet. victimation maanaam jël benn nit victimiser ko ne kii dañ koo tooñ kii dafa nangam dundatul nangam te alors que li tax ngay wax dañ laa fay xaalis li tax ngay wax sa poos a tax ngay wax maanaam fi mu toll jukkoo waxatul xol waxatul xel waxatul waaye poche mooy wax gis nga bët ki démb dama seetaan benn maxtaar mu nekk journaliste bu mag fii Sénégal benn maxtaar dafa bind benn livre boo xam ne dafay wax njaaxum yi nga xam ne ñoo am ci taskatu xibaar yi Pape Alé Niang invité ko waaye muy rencontré yu garaaw yoo xamante si nii yow buñ la ko buñ la ko waxee ba pare da ngay xam ne ñun fii Sénégal li ñu am li ñuy tuddee presse daanaka amuñu ko te boo boo seetaanee loolu la lay nuru yow naka ngay gis benn journaliste boo xam ni moom day mel ni day mel ni. moom dañ koo fay carrément pour bu bu bu nit euh, nit sàngam génnee rek mu dal ci kawam te pour nee na journaliste la te day taxaw wax daan ne eh diw de mayuma ko dara par exemple damay damay wax Aïssa Diop Fall ah, naruma koon wax sax waaye yow ko xam ne nga taxaw ne ah man di diw politicien sàngam bis bu génnee duma ko may dara lu wax dinaa ko dajji sànni ci àll ba <laughs> mel ni yow dañ laa fay pour nga toog foofu pour waxal diw an sa métier an sa métier ak yit li nga jàng ci xam-xam fan la féete est-ce que dafa war a nekk loo xam ne xibaar yooyu yëpp maanaam pour dajji lu di wax rek nga ñu man a indil déedéet beneen jàngat bi ma ci def te maa yéem moom mooy maanaam euh, kii di Ousmane Sonko maanaam lu mu def man laa bëgg xam ba pare maanaam lan la def ñenn ñi man dama ko yërëm. wallahi gis nga Sénégal mën naa ne Ousmane Sonko laa fi gën yaram yërëm ndax yow koo ni boo waxee benn wax day mel ni million yu doomu aadama dañ doon xaar yow pour yow nga wax te li nga wax. maanaam duñ ci gée dara lu dul loo xam ne nee ngay da nga yeefin na nga tàmbali nag ci journaliste yi journaliste yoo xam ne day mel ni ñoom dañ leen a fay pour ñooy dal ci kaw Ousmane ko nga gis ay nit ñoo xam ni ñoom yàkkamti woon lu dul def conférence de presse ba Ousmane Sonko waxee tey suba ñu def conférence de presse lan la def est-ce que moom dong moo fi homme politique est-ce que moom dong moo fi def des déclaration déedéet. man damay wax ni est-ce que maanaam Ousmane Sonko moom est-ce que gënul sax mu jékki-jékki démissionné dem toog fa dem topp topp liggéeyam moo gën lii. yow koo xamante ni saa su xëyee suba ba ngoon saaga yi yàq der gi tuumaal yi yow mel ni yow koo xamante ni kii moom moom du sénégalais. Ah, booy joxe ci Ousmane Sonko kay eh, xibaar bu fekkee la mu wax du dëgg taxawal ne du wax du dëgg loolu kay yow yaa Ousmane Sonko homme politique la comme yeneen homme politique yi rek bu waxee lu jar loo xamante ni daa jar a weddi dañ ko li nga wax du waaye ndax jar na nag ñu bëgg koo tam maanaam nit ku baaxul koo xamee ni ñëpp lañ ko bëgg a booleel loolu damay wax ni ñi nga xam ni ñooy taskatu xibaar yi nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax te gis nga may dellu di wax di waxaat. gis nga fitna bu dee nelaw nañ ko bàyyi mu nelaw te bañ koo yëkkati gis nga lii di euh, problème ñaari euh, yii muy problème mu Adji Sarr ak Ousmane Sonko yow loo xamante ni ay kilifa yi diina ñoo ci dox wax ci ba musiba ma ca naroon a xew dara xewu ca wa dama yaakaar ni kay xanaa fi nii war nañoo mën a am ñun. ak mat gu toll ni jël dossier bi taxañ ba mu jekk jébbal ko ñi nga xamee ni ñoom ñooy àtte te nopp ci waaye seen nga duñ ko def de da ngay gis ñoo xamantis ni ñoom day mel ni ñoom dañ koo def loolu bulo maanaam lu liggéey xam naa am na ñoo xam ne yàkkamti maanaam dossier bi yeex ndax daa mel ni ñoom loolu moo leen di may xaalis pour ñu am xaalis pour Macky Sall wala keneen faale leen faww ñu taxaw saaga ne Ousmane Sonko du dara wala keneen jóge fële ne Adji Sarr yaa xii maanaam ñun nañ xool fan lañ toll fi mu toll Sénégal Sénégal liggéey amu fi Sénégal liggéey amu fi Sénégal njàng amu fi Sénégal paj mu baax amu fi Sénégal maanaam élection yu normal maanaam carte d'identité sax boo ko bëggee am yow fi mu toll nii da nga daw safa ak marwa laaj ma man mi doon jéem wut sama carte d'identité réeroon ma dem di ko jéem a lijjanti waat mbokk xoolal problème yu ñu am ni mu gënee intéressant ni mu gënee am yitte ay Adji Sarr ak Ousmane waaye journaliste yi dañoo mel ni ñoom léegi tasatuñ xibaar xam nga lu ñuy def maanaam journal business la ñuy def te loolu maanaam lu am la man keroog laa xam ne ndeke journal yi yenn saa yi maanaam journaliste yi danañ tas xibaar boo xamante nii tey dañ leen a fay pour ñu jàllale ko te ki nekk ci ñoom moo ko wax muy benn maxtaar da nga dem jëli reportage boo xamante ni dañ laa fay xaalis pour yow nga jàllale ko wala kon ñun est-ce que ñun waruñoo jëfandikoo dëgg-dëgg li alquran wax mooy lan xibaar buñ leen andil su ngeen déggee ñu ne diw ku baax la <laughs> ne leen tekk toog di xaar kii mooy kan. ak ki indi xibaar bi ak xibaar bi fan la jógee suñ nee diw mii ko bon la bul dëggal xalaatal bu baax a baax kii mooy kan jàngat ko bu baax a baax loolu lay wax ni askan wi loolu lay wax ne fi mu toll nii askan wi weesu nañ xam nga fi mu toll nii boo xoolee jeu yi ñuy def yëpp mooy diaboliser nit ba duñ ko voteel te xam nañ ne Ousmane Sonko seen adversaire politique la xam nañ ni keneen yëpp noonu. waaye damay wax ni Sénégal tollatul foo xam ni danañ joxe consigne de vote maanaam danañ wax nit ñi ne leen voteel leen diw waaye nag weesooguñ foo xam ni danañ leen yee ci vote weesooguñ ko de ndax dafa am ay kayma journaliste yoo xamee ni seen poste dong lañ fi nekkal te rusuñoo yàq deru as gor rusuñoo tuumaal nit rusuñoo tam nit ne nekkul nit ku baax nekkul nit kuy wax dëgg ngir lan seen poste fees te dama leen di fàttale waxu Malcolm X Malcolm X nee woon na gis nga su ngeen moytuwul taskatu xibaar yi dangeen ngeen dem ba bañ ki ñu tooñ màggal ak a yëkkati ki nga xam ni mooy tooñkat bi Malcolm X moo ko waxoon boobaak léegi yàgg na mën na nisfu qarn nee na moytu leen taskatu xibaar yi bu baax a baax ndax su ngeen moytuwul danañ dugg ci seen xel ba def leen ngeen bañ ki nga xam ne dañ koo tooñ nappaaje salfaañe ay àqam wëlbatiku nag bëgg tooñkat bu mag bi te fi mu toll daanaka jeu yooyu lañ nekk kon mbokk yi nañu amaat fulla amaat fayda gis nga ñun lii ñu def kaa muy kaawu Adji Sarr ak Ousmane loolu du kaa ci réew yi nga xamante ni tey mooy réew yu développé yi ban réew ngay dem boo xamante ni am na lu leen doy sëkk ci ay liggéey ñuy dem di lijjanti naan euh, euh, viole am naag viol amut ak yegg na ci ak dañ doon bësloog dañ doon maaselu loolu la mujj suñu yoon maanaam léegi ñun bu demee ne Ousmane Sonko da doon bëslu da doon maaselu da doon violé ñun lan moo ci suñu yoon ñun suñu yoon néew ci de ban njariñ la ñu amal li ñu njariñ li ñu amal njariñ mooy yéen état bi ngeen liggéey Sénégal loolu ngeen war a def te bàyyi seen tappale yi ngeen newee ay diw da doon bësloog diw da doon maasloog diw da doon violé ñun lool suñu yoon newu ci yéen li ñu digg ak yéen yéen état bi rawatina yow président Macky Sall mooy nga fexe ba liggéey Sénégal ba am paj mu baax am fi nga fexe ba liggéey Sénégal ba ku bëgg aw këyit fi mu toll këyit ak doom bu góor a yam nga fexe ba ku bëgg a lekk lekk fi mu toll dund gaa ngi nii nee nga wàññi nga ko ana wàññi ba fu ne. maanaam sénégalais yi chaque jour dañuy dugg ci problème yoo xam ne du seen problème yéen fii la Macky Sall génn ne dund gi wàññi nañ ko ngeen commencé sébile ana wàññi dundi ga tey la dund tey la wàllu gën a aay dee leen dugg li seen yoon nekk tey lijjanti bu leen nangu ñu leen dugal ci ay pièces u Ousmane ay nangam moom moom xam naa ne na dem wuti ñaan moom Ousmane Sonko na dem wuti ay ñaan na dem wuti ay càngat. wa illaa moom boo wali jigéen moom yaakaar na dana doy waar loolu waay kon nañu góorgóorluwaat bu baax a baax ci sunum réew te moytu di yàq deru nit te it xibaar buñ la indil bu man ci doon gëstul bu baax a baax a baax ba xam xibaar bi wér na nga doog ko wax te moytul di tesaare xibaar bu la wóorul ba xam dëgg la wala du dëgg moytul it moytul bu baax a baax a baax dégg ci journal wala dégg ci ay xibaar wala ci réseaux sociaux ñu ne nit def na nangam wala def na mbonteeg nangam rek nga jël nga jug dal ci kawam déedéet. parce que nee naa la fi mu toll nii dañoo yor ay média yoo xamee ni mën nañoo gis wàllu woo xam ni kenn gënu ko ragal yàlla ñu xëy tam ko dëmm ba sénégalais yépp xëy ko bañ ndax lan ndax seen poos rek ndax lan nii nan lañ seen ceeb loolu moo fi am. kon bala ngaa dëggal mbaa ngay weddi dara yoral sa xel mii te bul nangu kenn di la diaboliser benn homme politique pour bañ nga voteel ko kenn ku ci ne yor na portable kenn ku ci ne yor na leneen loo xam ne mën ngaa gëstu bu baax a baax a baax ana kan ban leader moo la doy demal nga gëstu ji ba xam leader bi la doy nga dem voteel ko def ko muy sa candidat waaye bul déglu ci rajo yi ak télévision yi ñu yàq der rek nga ne ak ah, kii diw baaxut dem déedéet boo ko defee wax dëgg yàlla dangay ngay bokk ci waa Njóobeen yi te bokk ci waa Njóobeen yi dara jalu ko ñu leen di jégalu bu baax a baax wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullah lakum shukran lakum sunu mag yi fi daan yare dinu wan di jàngoro bu ne am na saafara bu leen jaaxle atoti di jóge Côte d'Ivoire li mu làmboo ci liy seddal yaramu doomu aadama mëne su ko lim waaye bokk na ci li mu làmbool ñi am faiblesse sexuelle maanaam góor gi néew kàttan ci wàllu sëy atoti amu ca moroom ñi amee diabète dafay wàññi seen kër ba ci yow mi amee tension dafay régulariser sa tension atoté dafay leeral bët maanaam yow mi sa bët lëndëm atoté baax na lool ci yow baax lool ci góor wala jigéen bu am biir buy metti atoté ca ay ba ci fatiguement général wàccee coono moo ca mën ba ci hémorroïde foo toog sa biir di jooy naan xur wutil gaaw atoté ca MMC Global Business nekk fii ci Touba marché Ocass Mamadou Gueye moo koy indi ak quantité bu ngeen ci mën a soxla téléphone 77 716 23 99 ak atoté sa yaram dafay sedd guy